trois ñaari xale waaye kenn ki mu ngi dëkk Caaro kenn ki Géejawaay Sa Thiès ak Reug Reug Face Brise nu mu gisee waaw gis naa ko ñoom ñaari ñëpp wax dëgg yàlla ku ci nekk liggéey nga waaw Sa Thiès bëgg na combat bi bu baax a baax a baax soo xoolee fes fes bu njëkk ba ak bis Sa Thiès ñëwaatee état bi changé na bu baax a baax a baax. Uh-huh. gis nga état bu baax la yor. waaw combat bi moom ku ci nar a analyser nga juum de. Mm-hmm. Mm-hmm. non déggoo ma ne la. ñoom ñaar ñëpp laa la wax nii munoo wax ni kii mooy favori. Hmm? waaw munoo wax kii mooy favori te ku ci daanu giri de nga yàpp Gris 2 waaw ku ci daan rek Gris 2 ngay am. ku ci daan. yaa ngi ci diggante Tapha Tine Bombardier kenn mënu laa bañ yaa ngi ci VIP yi par force da ngay amul kenn ku la mën a bañ ci VIP bi mais képp ku ci daanu ku ku ci daanu yaa ngi ci Gris ko yaa ngi ci Gris 2 Gris 2 mu ngi lay xaar waaw. waaw Gris moom ci ñaar ñooñu ñooy ay adversaire am dina fa jël revanche dina fa jël Sa ku ci daanu nag mais képp ku ci daan diggante Bombardier. ak Tafatine ku ci daanoo ku ci daan. am nga fa adversaire. Mhm. ñoom ñaar ñi seen communication boo ko déggee affaire lu làmb la rek. affaire lu làmb la rek soo xoolee seen communication muy muy liiru jaan ak Xaadim Njaay dañuy neexal rek. waaw loolu moom neexal la rek. xam nga tey combat Boy Niang Balla Gaye bi gis nga liiru jaan nu ci doon wax bi mu jeexee jeex na dañu doon neexal rek kenn waxu ci lu débordé kenn waxu ci dara lépp loo ci gis nag làmb la rek. Mm. communication ñaari mbir rek jàpp na moom 10 combats mu daan saa Thiès 10 jël yu nduróo. gëm-gëmam la wax gëm-gëmam ak maa ko nangul gëm waaw gëm-gëmam la wax Sa Thiès li muy wax gëm-gëmam la dama koy nangul. làmb la ku ci nekk da ngay wax li nga gëm ak li nga liggéey moom ngay taxaw ci micro bi rek wax waaw li ki des mooy bu ñu tëjee barrière. rëdd gis ko buy ñëw arsenal mystique ñëpp jàpp nañu combat bi ci mystique la ko rek. non non Reug du jël affaire am yëpp def ko ci musique Reug Reug ñëpp gis nañu li mu def ci làmb ji ah daan Elton Elton moo Elton Reug Reug rek ko daan ba mu jaaxaan amul benn mbër boo xamante ne moo téye Reug Reug daan kii euh, Elton daan ko ba toog ci biiram ba pare mu def ci lit lit simple loo xamante ne lu doy la xam nga teewal réew mi tamit yore raaye réew mi yóbbu ko fu ne nekkoon capitaine équipe nationale Mhm. non non affaire mystique moom fee lañ koy def man moom mystique moom wax dëgg yàlla quatrième position laa ko def ci làmb mais en tout cas képp ku ci analyser yaa ngi juum waaw jox sa morom favori kii moo kii moo mën kii yaa ngi juum. am na ne fu mu ne nii bët bëree bëree Reug Reug moo gën a moo gën a ñor moo gën a bët bu Sa Thiès. waaw xam nga tey am na ñu koy wax mais tamit Sa Thiès li mu ñi ñi mu bëreel ci bëri doo nit ñu am tour ñooñu Reug Reug bëreegul ak ñoom mhm. moo tax ma ne la dañ koy def cinquante combat boobu daal man moom wax dëgg yàlla man sama bopp man cinquante cinquante laa ko def. xoroo nuyu de dégg naa daa daa daw laax bi ma rek rek nuyu yaayam fii la jóge Papa fii la dëkkoon ñun moo ñu yàgg premier mbappatu Eumeu Sène Papa Kane moo ko organisé fii ñëpp xam ñu diggante Papa Kane ak papa yi Reug Reug ñoo bokk ndey ak baay ay njabootu Reug Reug yëpp fii lañ dëkkoon maa leen yar fii muy ñoom njaay Malick Ahmed Kane Cheikh Kane xam nga suñu papa Papa ñoom ñëpp yaayu Reug Reug fii la dëkkoon Pikine am na plein droit tudduma waaw parce que tamit waaw yaayam moom suñu yaay la suñu lépp la di ko ñaanal jàmm. Mhm. combat bu nekk combat comme ni ko ñëpp waxee ne Sa Thiès li mu jógee ci magam li mu jógee ci défaite day nekk pression supplémentaire ci moom est-ce que gis Pape Sarr yow gis na loolu. non gisuma loolu non non non gisuma loolu ni ma gisee Sa Thiès nii yooyu du ko yóbbaale ci làmb su ko yóbbaale ci làmb rek day ñàkk làmb loolu moom bu mu ko yóbbaale ci làmb. Mhm. làmb bu ñu bëre bi ci avantage avantage u euh, bëre bi mooy ci xeexu Sa Thiès si lay gën a am avantage mais bu nekkee ci bëre bi man rëg-rëg laa koy jox. waaw waaw bu bu bu bi gaawee tamit day arranger Sa Thiès mais bu yàggee day arranger Reug Reug. Mhm. am na Reug ni muy bëree day téye ba jàpp ba mu dëgër soo ko bëree. Sa Thiès day songi ji. Mm-hmm. ñoom ñaar kan moo ci ko déggoo li ma la loolu laa lay wax dama ne la bu nekkee ci bëri bu yàgg la Sa Thiès euh, Reug Reug la arrangé mais bu nekkee dafa gaaw Sa Thiès la arrangé. bu ñu xeexee Sa Thiès la arrangé. Hmm? waaw ñu xeexee moom Sa la arrangé. Mm-hmm. parce que Sa Thiès la gën a gis muy xeex. kër Reug Reug waaw. même ñaar fu nekk nii boroon joxe fan koy ma jox kenn cinquante cinquante waaye jox du ma jox kenn. parce du ma jox kenn wax dëgg yàlla du ma jox kenn. Mm. du ma jox kenn xam nga man maa ngi statut rek rek. Mm. maa ngi koy statut. waaw parce que man day lire sama statut maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy statut. waaw mais du ma wax kan laa maa ngi maa ngi statut rek ah, rek. koy statut parce que ay. ay combat yu mu yu mu yi mu bëri MMA laay estati yoo xamante ne dafa demoon xam nga yore drapeau Sénégal ñaareel bi du wax naa la ko dama ne la ay waajuram fii lañ dëkk fii kër gii kër la baat bu ndaw bi kër gii mooy kër gu mag mais kër gu ndaw gi fii la Papa Kane dëkkoon li nga fi Papa Kane dëkkoon doomam yi fi juddoo yëpp ngénte bi da nga gis duubal lees moor ngeer xam nga bépp ancien gurwaal boo xamante ne télé nga ko doon gis ñun dañu la doon gis nii bu papa kan Moussa la xew la ñoom Mor Nguer Mohamed Ali suñu suñu papa xam nga kii euh, Alioune Seye billaahi ñoom ñëpp fii laa leen gisee fii ngente papa bii mooy Ahmed kan ñoom ñoo xaadim mooy caat bi ñoom Ahmed kan ñoom ñëpp fii lañ juddoo ñoom Ndiaye Malick ak Cheikh kan ñoo fi juddoowul mais ñoom ñëpp fii lañ nekkoon ci koñ bi papa di fi organiser mbapat fii ci buntu kan bi ëmmat seen ak ku ne ñëpp ñëpp fi bëre fii amul mbër bu ñu fiy dégg boo xamante ne rek ñëw ci buntu kër gi tey Papa Kane la yaayu Reug Reug fii la jógee voilà kon lu bëri dem si def kot damay noppi. <laughs> kot bi maa koy déggoo de. <laughs> li nga xam ne nag ñëpp moom lañ doon di ñu ne ancu na dimanche ay def face fees face Modou ak Boy Niang Pape Sarr boobu. combat boobu xam nga man bu muy taxaw Gambie la ma fekk man démb laa ñëw ci stade bi. Ah, sax bañ koy rumba naat yëpp yaa ngi fi woon. waaw non nekkuma fi. man voyage. kii euh, Alioune Seye billaahi ñoom ñëpp fii laa gisee fii ngénte papa kan bi mooy Ahmed kan ñoom ki ñoo xaadim xaadim xaadim kan mooy caat bi ñoom am Ahmed kan ñoom ñëpp fii lañ juddoo ñoom Ndiaye Malick ak Cheikh kan ñoo fi juddoowul mais ñoom ñëpp fii lañ nekkoon ci koñ bi papa kan di fi organiser mbapat fii ci buntu kër bi ëmmat seen ak ku ne ñëpp ñëpp fi bëre fii amul mbër bu ñu fiy dégg boo xamante ne rek ñëw ci buntu kër gi tey Papa Kane géewal la yaayu Reug Reug fii la jógee voilà kon lu bëri dem si def kot damay noppi <laughs> kot <laughs> li nga xam ne nag ñëpp moom lañ doon di ñu ne ancu na dimanche ay defee su fees Modou Lo ak Boy Niang Pape Sarr boobu combat boobu xam bi muy taxaw Gambie la ma fekk man démb laa ñëw ci stade bi ah, sax. bañ koy bañ koy rumbanaat yëpp yaa ngi fi woon. waaw waaw non nekkuma fi. man man voyage.